Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 12 septembre 2024 foofu la ñuy desandi ci naufrage ak accident yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko Sénégal kii di président Idriss Seck bu parti réew mi moom it présenté na li nga xamante ne mooy ay condoléances am jëmale ko daal ci famille éplorée yi ginnaaw bi nga xamante ni daal surtout chavirement bi nga xamante ni mën nañ ko tuddee benn gaal ci large Mbour jëmale ko ci série accident yi nga xamante ni ñoo am ci tali bi moom Idrissa Seck président parti réew mi mi ngi demandé lii di gouvernement bi ñu engagé bépp mesure boo xamante ni tey dafa war a tukkandiku ci conjoncturel bi nga xamante ne ak ay structure infrastructure yu nécessaire pour que ñu endiguer li nga xamanteni moy pareil pareille catastrophe jëmele ko dal ci présenter li nga xamanteni moy ay jaalam ñi nga xamanteni dal ñoo seen Sénégal mi ngi dundu lamono ji li nga xamanteni ben le drame la bu liy ak immigration ko ci naufrage ou galbi bi daanu fofu ca Mbour ginnaaw bu mu défé ay dizaines de victimes muy drame bo xamanteni ni muy dernière longue série d'accidents yi am ci tali muy naufrage embarcation fortune jëmele ko dal fofu rallier Europe mom Idrissa Seck bu parti réew mi lépp lo xamanteni dal daal da ko def moy jébbal ay njaalam jëmele ko dal ci famille éplorée yi ba noppi daal di imploré àlla mu accordel ñi nga xamante ni mooy yi miséricorde am jëmale ko daal ci njéggalam parti réew mi daal mi ngi demandé lii di gouvernement bi mu engagé bépp mesures conjoncturelles structurelles bu nécessaire pour ñu endiguer li nga xamante ni mooy catastrophe yi nga xamante ni dañ koy accordel ay famille jëmale ci assistance jëmale ko daal ci soxla yi nga xamante ni tey muy ay moments yu difficile yoo xamante ni mën nañ ko situer jëmale ko daal ci ay responsabilités